xayri almaxdubi alayhim wala daalliin sabbix isma rabbika al-a'laa allazii xalaqa fa sawwaa wallazii qaddara fa hadaa wallazii axraja al-mar'aa fa ja'alahu ghusaa'an nahwaa sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa allaah innahu yaalamu aljahra wa maa yaxfee wa nuyazziruka lilyusra fa dakkir in nafaati dikra sayaddakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al-atqaa allazii yaslaa an-naara al-kubraa summa laa yamuutu fiihaa wa laa yahyaa qad aflaha man tazakkaa wa zakara isma rabbihi fa sallaa bal tu'thiruuna al-hayaata ad-dunyaa wal-aaxiratu xayrun wa abqaa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 والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والعضل وما تهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث ألقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها fa kaddabuuhu fa aqaruuha fa damdama alayhim rabbuhum bi zambihim fa sawwaaha falaa yaxaafu uqbaaha allahu akbar sami allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd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 wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayyidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin amma baadu fa haada alyowmu yowmu alcaydi likulli muminin muslimin muxsinin saciid فاذكروا الله تبارك وتعالى في على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوزيكم فيه وبعده بملاسمة ما اختير لكم من الأغلاق والعقائد والأغوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد wa u'azzirukum fiihi wa ba'dahu an kulli maa lam yuxtar lakum min al-ibaadaati wal-'aadaat fa inna maa xtaarahu llaahu tabaaraka wa ta'aalaa lakum huwa al-jaami'u lis-sa'aadaat fa tuubaa liman laa yaltafit ilaa ghayri rabbihi mulaasiman maa xtiira lahu min muniiri lubbihi wa waylun liman qaadahu ibliisu illaa maa saa'a fa innahu yulaasimu maa aqsaa wa azaahu qaala allahu tabaaraka wa taala wa maa aataakum arrasulu fa qusuuh wa qaala allahu tabaaraka wa taala fa man yacmal mitqaala darratin xayran yara fa tuuba liman aqsaa maa ataa bihi rrasul alayhi bi aalihi wa sahbihi salaama muti suul wa lilladi himmatahu tartaxi ila alxayri laa ila alkadari wa dayri wa waylun liman yaxus maa ataa bihi almuntaxaa ali bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bi intiqaa wa uusikum ayuha al ixwaan li wacci man kafaani sawi alxasadi wal udwaan bi an laa tufaariquu maxsiira lakum abadan fa inna mufaaraxatahu tajurru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fi'li kulli maa lam yak maa lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimmaa yuwajjihu ilaa gayrikum al ajra wa ridaa wa sawaaba wala tatlubul karama bi xayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubul izzata min xayri alazizi almuiz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi alaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala illa siwah tarakahu maa nafsihi wa hawaa wa man aqbala ila llahi tabaraka wa taala maa alwasila xaada ilayhi kaalamaa kullamaa kaana yartaqi ilayhi min aljamila يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمتي قبل موته فإنه يشفع في عند مميت ميته وأن من لم يتب منهم توبة نسوها فقد أمره من وعثه نسيها rabbana laa tusi quluubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka raxmatan naka antal wahaab raxmatan naka antal wahaab rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala tajal fi quluubina gillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi alkazira wa subhanallahi bukratan wa azira alhamdulilahi alladi jacala yowma alhiid yowma altawsiati waltafrihi walitlaq walsalaatu walsalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli walsirki walnifaaq walimlaaq sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi sawi nifaq wa ala man tabiahum bi ihsaanin fi jumlati alafaaq أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جار به في فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وإطق بفضل من جار بفتق, بفتق رتق ومن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظهر بكل ما من الغير يصطفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى غيره فإنه تبارك وتعالى يضرب إلى غيركم ديره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم سبيل الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيهم من أبوا فيه الاجتماع bi jaahi fi lqadawaati almurdiya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi zawi lardiya alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yattaxid waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min adulli subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngi leen di nuyu lu bari te di leen siyaare bu baax ci bés bu tedd bi te di leen baalu àq te di leen ko baal te ñaan suñu borom boole nu jéggal nu am kàddu yu gàtt rek yuñ tënk ci wolof ngir xutba bi nga xam ni moom la doon jàng ci lam lam làkku ñu bari dégguñ ko waaye mu aju ci bis bu bi nga xam ne sunna la soo xam ne sun boroom moo ko sunnaaloon ci sunnaam Ibrahima mu jaar ci sallallahu alayhi wa sallam ba agsi ci nun mu di ko dundal ñaan sun boroom yàgg nu koo fekkale te lépp luñ ci jaamu sun boroom nangul nu ko mu doon loo xam ne jullit yépp ci war a sant sun boroom ndax kam ko digaloon Pastef ba mu àndaloon ba façon yéene jëfe ndigalul sun boroom suñ boroom ci yërmandeem moo ko mujj worteel defal ko ko ab gàtt waaye da koo joxoon ndigal ngir mu ren di doomam waaye ndigal loolee nga xam ne moom la façon yéene jëfe suñ boroom defal ko ca lu kawe njot defal ko ca tawféex nun ñii ba mu agsi ci nun war di sant yàlla ndax loolee bu ko suñ boroom wéyeloon tamit noola mooy wéy ba suñ jonni tey kon nag war nañuy sant yàlla bu baax ci loolu di ñaanal Euh, sun di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaanal sun maam Ibrahima sun borom yokk ko ay daraja yu gën a kawe ak yam amoon ak sangam bu te ak sun sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ndax sunna soor yi moo ko jotal ba ak agsi ci nun yonent bi sallallahu alayhi sax dañoo wax ne bis tëbës tëbës ki rey ñaari gàtt benn bi mu defal ko boppam bi ci des mu ne maa ngi koy yéene mboolem sama xeet wi moo tax bis bu ñëwee ku ci man la yonent bi defoon maanaam muy rey ab gàtt nga def ko waaye ku ko ci mënul tamit nga def la nga man waaye def ci loo xam ne ah mën na laa jural ay coono wala ay bor yoo xam ne te bis bi lu gàtt la bu jàllee ngay réccu lu mën a ñàkkal te yonent bi sallallahu alayhi wasallam façon fas yéene waa leen woon nañ ci benn gàttam boobee noo ngi ñaan suñu borom dimbali nu bu baax te saxal nu ci santaane yi te musal nu ci tere yi euh, kàddu yi nag jërul muy gudd noo ngi soññaat mbooloo mi rek nu gën a fonkaat barab bii nga xam ne li Milan di rëy rëy moom rek lañ fiy tudd tudd sëriñ bi képp koo xam ne daa nga ci jàpp nga yokk sa pas-pas ku ci dawul jàpp nga jàpp ci ngir jëmmi yàlla ak jëmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam barkeb Cheikhul Khadim ah, ñuy sant bu baax bokk yi nga xam ne ñoo fi teew muy sëriñ Mansour moom sëñ Cheikhouna am sëñ Abdoul Ahad ak ba Bachir Mbacke moom sëñ Moustapha am sëñ Abdoul Aziz ak euh, sant jenn ak sant euh, suran ñoo ngi leen di nuyu bu baax tey nuyu mboolem taalibe yi euh, kaddu yi daanaka jël bu gudd ndax yitte yi bari na ah, noo ngi sant ñëpp tey ñaan suñu borom teewelaat na ko déwén te kenn bañ a manqué suñu borom defal na ak yokkute ba kenn ku ci nekk la la tax a jóg suñu borom jàpp ndal la ko nga amee ko na ko bëggee barke Serigne Touba noo ngi nuyu ñëpp tey sant ñëpp tey gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf waaye nag na tàllal loxoom bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi la ahaba wa اللهم جمع الخير وجميعنا على شر محمد المصطفى عن كل من جدهم بعد يوم القيامة الحمد لله